Euh, asalaamaaleykum man la di jaxate promoteur de la capitale du rail maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam ci turu di jaxate production nekk ak quelque membres ci comité bi nga xam ni mooy comité d'organisation bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci li nga xam ni tey jii moom moo am ci réew mi mooy ku ci nekk xam na ni xalif général des mourides sëñ Sidi Makhtar Mbacké yàlla dafa def mu jóge fi bërki dem ba moo waral tey jii ñu koy jaale peuple Sénégal bi di koy jaale umma vraiment bu bu bi nekk bi nekk à travers le monde di ko jaare aussi képp koo xam ne jullit nga bu nekk ci réew mi ak bitim réew ak foo manti ne di ko jaale aussi sénégalais yëpp parce que ku nekk gis na ni tey suñu mbokki catholique yi ñoom it ña nga fa di jaale ku nekk gis nga ni tey jii délégation gouvernementale bi ma nga fa ku nekk gis na ni taalibe yi bi loolu amee ba léegi kenn toogatul te moom dafa nekkoon fédérateur kon sëñ sii di Mokhtar yàlla nañ yàlla taas ci barkeem ñu koy ñaanal aussi yàlla yóbbu ko ci àjjana yooyu gën a kawe may wax ni nag loolu moo waral tey bi nga xamee ne xalif général bi tey jii làq làqu na man ak ki nga xam ni moom mooy Siré Dia di DG du groupe La Poste ci moom ci kàddoom mu woolu ma ñu toog ñu waxtaan si ne ma Sidi lii nga xam ne dafa wàcc ci réew mi kat te nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ñoo ko yëg tey jii dama du bëggoon jox la instruction pour que lamb ji nga xam ni moom nga ma jagleloon ñu war koo def dëlloo njukkal président de la République ma nekk parrain bi ma la doon ñaan pour ñu dem nag delloo ko ginnaaw quelque jour moo waraloon ñu xool ak CRG bi xool ak direction bi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci euh, euh, champ de course bi di arène bi nga xam ni moom lañ tuddee Ndiaw ma du Diop bi ñu waxtaanee ak mairie est ñu xool ni que ni possible na pour ñu delloo ko pour quelque jours maanaam def ko samedi le 20 janvier report boobu nag ñu def ku nekk xam na ni mooy cas de force majeure parce que li wàcc ci réew mi toll na noo xam ni toll na foo xam ni sénégalais yi toll moom toll ko moom Siré Dia foo xam ni sori na ba moo waral moom Siré mu vote moom le DG du groupe de la post mu ni ñu daal nañ ko nañ ko nañ ko dàqaat ba nga xam ne def nañu sarax seek yooyu yëpp ba quelques jours moo waral ñu ñuy waxaat tey jii pour wan nit ñi leen làmb jooju ñu waroon a def dimanche 14 janvier dàq nañ ko ba samedi 20 janvier di jaale nag képp koo xam ni tey jii taalibe murit nga di jaale jullit yi di jaale xarit yi di jaale am di jàmm yi Siré Dia mi ngi présenté condoléance képp koo xam ni tey jii doomu Sénégal nga rawatina nag mbokki jullit yëpp di leen wax ni daal ñoo ngi gërëm di sant ñëpp te leen di wax ni nag comité d'organisation baa ngi. mbokk àddina bi. asalaam asalaamaaleykum waa Thiès man maa ngi tudd Ismaïla sant Mbaw donc bokk ci Sidi Diakhaté production nekk ci volet d' euh, d' organisation bi nga xam di Sidi di Sidi Diakhaté production donc euh, tey boo gisee suñu teewaay fii tey dañoo nekkoon si naq rek tiis amoon suñu kilifa gu mag goo xam te ne dafa génn àdduna moo waral tey ñu dàq bis bi yóbbu ko ba la samedi 21 ba samedi le 20 euh, janvier fële ci hippodrome ñoo ma ko ci biir loolu nag man ma nekk ci organisation. bëggoon a dalal xel nit ñi wax leen li nga xamante ne moom la ñuy préparé le 20 le 20 dañoo am làmb joo xamante ni mi ngi dox si diggante ambulance ak naar sokaas ci wàllu organisation bi nga xamante ni moom si lañ nekk si lañ bëggoon waxtaan ak yéen tuuti dafa am loge am turbine am pourtour pourtour bi 1000 francs la turbine 1500 la cinq 5000 la te wàllu loge moom képp ku bëgg a toog loge bu fekkante ni bëgg ngaa ñëw toog. na nga jënd billet 5000 francs nga ñëw toog loos te xam ni ñun li war ci organisation bi yëpp daal préparé nañ ko te boo leen ñëwee seen xel daal ci wàllu sécurité ci lépp. waaw jërëjëf wasalaam moom man sama kàddu xam naa ko yëkkati pour jàll leen ko daal. man la Lamine Mbow nekk si Sidi Production bon bala may démarrer damay jaale képp koo xam ni jullit nga te nekk ci Sénégal te nga si euh, tiis yi nga xam ni moom moo ñu dal euh, si sunu xalif général bi nga xam ni moom moo ñu dëddu di ñaan yàlla xare ko si àjjana yi gën a kawe. bu loolu weesee lam suñu rapport bi ngeen xam euh, ni moom nañu def si suñu làmb bi ñi képp xam nañ ni Sénégal gépp nañ ko mën a rafetlu di leen jëgal nag bépp dispositif boo xam ne moom lañ jëloon si euh, le 14 bi passé moom nañu nag moom nañu bëgg a yokk incha allah pour le 20 bi samedi le 20 mu doon làmb boo xam ni dañ koo bëgg a lépp loo xam ne daal dafa nekk sur le plan sécuritaire par exemple dañ koy gën a yokkaat parce que xam nañ ni fi mu toll nii doona loo xam ñëpp a ngi koy préparé njaam bi ñëpp xam nañ ni diggante euh, euh, Matar Mbaye ambulance naar sogaas mbaa que euh, Pam Mbaye ak jam yi ñëpp xam nañ ni làmb joo xam ne dafa war a dayna du du monde moo tax lépp loo xam ne daal ñun bon si sécu côté sécuritaire la nañu sécuriser zone lépp loo xam ne zone champ de course la loolu bu si kenn am xel ak ñaar si côté volet aussi stade bi aussi organisation bi da ngeen xam ni sunu euh, buntu stade yi nañ nañ leen jéem a euh, ubbi à partir de euh, ay 14 heures dañ leen ubbi incha allah donc képp koo xam ni bëgg nga teeweel bis boobu dañ lay ñaan nga teel a ñëw. teel a jënd si biir si écurie yi parce que biir yi normalement dañ leen war a jox si écurie pour euh, euh, à partir du bu làmb ji desee 48 heures normalement dañ joxe biir yëpp si écurie yi comme ça képp koo xam ni bëgg nga dem tribune ñu lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi nga jënd sa biir tribune si écurie yi parce que dañ jox ay billets yoo xam c'est à 1500 francs yooyu mooy billets yi nga xam ñoom ñooy dem kër tribune képp koo xam ne bëgg ngaa dugg dem si pour tour bi billets yi ñu ngi la koy jaayee à 1000 francs am na aussi ay billets yoo xam ni pour loge officielle bi la ngi koy jaayee à cinq mille francs billets yooyu képp koo xam ni bëgg nga see am da ngay il faut nga ñëw ba si stade ba si comité d'organisation parce que yooyu du ñu ko mën a jox écurie yi ñu koy vanter di leen ñaanal yéen ñëpp la képp kuy mbër yàlla may la wër képp koo xam ne aussi bëgg nga teewe bis bi yàlla may la mbër yàlla may wër Sénégal gépp tiis bi nga xam ne loo dal suñu kaw di ñaan yàlla mu may ñu xolub muñ boo xam ni dañ ko mën a muñ bu baax a baax a baax daal di nuyu mbokk Thiès. moom man maa ngi tudd Pape sama Yade comme ñii ñi ko ñuy waxee rek bon ñi ngi jaale ñëpp ñu dem comité murit jullit yeeg ñëpp di leen ñaanal yàlla mu taaf na ci barkeem man nag li ma bëggee expliqué ci problème mu sécurité bi laa bëgg wax problème sécurité bi comme ni ñu ko doon defee ci làmb bi pas dafa gën a am doole dañu jël policiers yi ñu koy sécurité diggante Hersent ba ba Mbambara cité Senghor mboolem fépp fu wër stade bi pour ñu bañ a semer benn erreur ci làmb ji parce que bis bi dafa nekk bis boo xam ni dafa rëy maanaam mbër yi tamit ñu ngi leen di wax ku ci bëre ba pare da ngay génn ci biti lépp daal loolu laa ci mënoon wax daal. Euh, asalaamaaleykum man maa ngi tudd Vieux mm, nekk ci Sidi Production bokk ci comité d'organisation bi euh, comme ni ko sama naataango yi waxee léegi. di dañuy jaar fi ñu jaar rek di jaale umma islamique bi yëpp euh, xalif général de mourides bi fi bàyyeekoo barki dem euh, di ñaanal sëñ Muntaxa mi nga xam ni moom la yàlla def mu del mu ñëw toog yàlla na yàlla defal ko gudd fan wër ak wérle comme niñ ko doon ñaanalee xalif bale yàlla def yenn bi woyof ci moom bu loolu wéyee euh, di Production comme niñ ko defee nii ren muy sunu démarrage saison de lutte ci Thiès. bu ko defee ñu def ko ñu bëgg ko def ci fair play di ñaan ñëpp ñu ñëw seetaan làmb mu nekk euh, loo xam ne dañuy ñëw seetaan ko ci jàmm delluwaat ci jàmm volet finance bi comme ni ko di waxee nii léegi euh, Sidi ku ko xam-xam ni organisation làmb euh, du du du du du du du lu muy caaxaanee donc dañuy bëgg kenn ku ci nekk rek booy ñëw na nga ñëw ak discipline ngeen ñëw heure jënd seen billet heure à temps mën a yéeg ci kaw tribune seetaan làmb bu làmb ji jeexee kenn ku ci nekk ñibbi ci jàmm lii nag da di loo xam ni appel la bu ñuy defaat parce que le 14 lañ ko programme woon yàlla dogal li mu dogal ñu yóbbu ko le 20 le 20 donc dañuy woo képp koo xam ne amateur de lutte nga ak foo mën a nekk ci biir Sénégal di Production ci kaw Sidi Diakhaté nekk ci ñu ngi lay invité pour nga ñëw euh, Thiès le 20 euh, hippodrome Ndiaw Macodou Diop. muy ex champ de course euh, ex champ de course fa la ñu bëgg a defee làmb ji bu ko defee ñuy ñaan ñëpp kenn ku ci nekk ñëw ci jàmm nga delluwaat ci jàmm loolu daal mooy li nga xam ne ci gàttal loolu laa ci bëggoon a sànni pour bañ. ñëpp dégg ngeen mbir mi. ñoo ngi gërëm ñoo ngi gërëm bu baax euh, euh, Thiès point Thiès 24 point com muy site boo xam ne site bu wóor la guddeeg bëccëg subaa ngoon aussi information yi muy joxe yu juste et la. may wax vraiment maa ngi gërëm administrateur bi donc di gërëm équipe bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom di liggéey te ñuy ay professionnel vraiment ci li nga xam ne ñu ñu koy jàppale aussi ci volet communication bi ñuy def di wax ni nag euh, vraiment directeur général Siré Dia maa ngi koy gërëmaat di ko santaat ci turu si di jaxate production mais si turu lutteurs yi surtout ak jeunesse bi yëpp ndax ku nekk gis na ni moom bisam vraiment macha allah dina ko def ba mu mat sëkk ba pare boo waxee mun la. loolu yëpp dama ko def rek pour jàppale son excellence ci politique de jeunesse bi muy def muy monsieur Macky Sall kon nag vraiment DG yow au moins visionnaire nga li nga def nii am na solo ba xale yi mbër yi dañuy profité vraiment di la waxaat jërëjëf ndax bëri ci sa bis dañ koy dañ koy bëgg trop na muy bis bu mag a mag may gërëm di sant sa soxna soxna Fama Ndaw mais surtout di gërëm aussi l' ensemble des policiers du Sénégal ak bépp militant boo xam ne aussi bu APR nga mais rawatina bu nekk ci sawet tamit di wax ni nag vraiment merci beaucoup aussi au président Macky Sall ñu ngi koy jaale waat euh, xalif général bu baax a baax a baax ci turu Siré Dia di la ko jaale ci suñu tur mais surtout di jox monde sportif yëpp le 20 janvier ñu ngi leen di joxaat samedi 20 janvier ci hippodrome El Hadji Ndiaw moo Koddu Diop may may wax ni daal vraiment administrateur bi jërëjëf di wax aussi équipe bi ñu àndal jërëjëf merci beaucoup